waaw loolu xam nga nit ñi ñoo ko kii rek mais Séné maanaam àdduna moo doxe noonu àdduna mën nga nekk nit ki tey du ngeen bokk position wala du ngeen bokk gis-gis parce que itam ëllëg ngeen bokk gis-gis donc mooy waral tey nit ki mën na contre nit tey suba mu ànd ak moom. donc kon mooy tax wax yéen doon wax dañu xam ne bokkuñu woon position mais léegi suñu demee ba gis ni li ñu dajee vraiment position bi ñu dajee ñoom njariñu askan wi rek moo leen ci soxal bon bu ñu ci àndaatee man duma ci gis leen lu lu lu normal daal lu lu normal laa ko gisee peut être démb Abdoulaye Wade daf fi nekkoon di def benn gestion boo xam ni moom moom moom kiiwu si àndu si mu génn di manifester moom peut être moom ni ma ko gisee intérêt Sénégal la ko tax a jóg mais tey bu gisee ni Abdoulaye Wade ñëwaat na si côté boo xam ne ñun suñu intérêt la moom normal la ñu fekkaat mu fekkaat Abdoulaye Wade si combat boobu ndax lu ne gis nañu fi gis nañ fi démocrate ànd ak libéralisme ak libéralisme ànd ak monocrate ak lu ne mais c'est normal ndax combat bi combat nation bi la c'est normal que ñu àndaat fàtte seen différence yi pour peuple bi ba suba ñu xoolaat ñoom lu ñuy def mais peuple bi soxlaa ku nekk war nga bàyyi sa sa appartenance ñëw jàpp si même combat bi man noonu laa ko gisee gisuma ko lu maal lu nekk lu maal mu ànd ak Abdoulaye Wade di xeex. nit mën nga ko xas tey mais boo demee ba gis na yow yaa nekkul woon ci dëgg nga ànd ak moom mi nekkul woon ci dëgg ba muy xas Abdoulaye Wade mais aujourd'hui dem na ba gis que ne moom fi mu nekkoon moo dul dëgg moo tax mu ñëw ci Abdoulaye Wade quoi. du ma la xas ba pare fas yéene toppaat sa ginnaaw ndax nit ki moom peut-être loolu loolu mu def. day jéem a xool nu gouvernement am amee doole yaa ngi comprendre loolu moo tax tey mu ñëw tey di topp si ginnaaw laay wàdd ngir amaat bëgg-bëggam ndax fee mënatu fa am dara lo xam ne bànneex la si kanam mak Sall ndax tamit ni ku nekk rek tey yaakaar naa ni kula la ku la jiite da nga koy jox cër gu moom. ça c'est de la politique ñoom ay politiciens lañu lépp lu ñu mën a wax mu rafet pour seen intérêt dañ koy def lu ñu mën a wax mu ñaaw aussi pour seen intérêt dañ koy def donc am ñoom double couteau à double tranchant lañu quoi. il faut les comprendre aussi. Hein. Il faut être intelligent pour avoir les gens.